asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ñoo ngi sant suñu borom bu baax a baax a baax ñoo ngi sant Cheikh Mahamadou Fadil si taxawaay bi ak leeral yi di gën a sant bu baax ci dégg digal gi mu digal xutba bi barkeb xutba bi dégg gi rek suñuy nopp doy nanu daja nag moom euh, mën des wax lu ñu waxutoon dëgg la xanaa fàttali ak soññi rek loolu it mën naa bañ a gudd loolu di moo di rek ñu gën a góorgóorlu bu baax ci suñu diine góorgóorlu sàmmanteeg moom baax baax suñu kem kàttan góorgóorlu itam sàmmanteeg suñu taalibe lu cay suñu kem kàttan góorgóorlu itam bu baax suñu diggante ñun jaam ñi góorgóorlu bu baax ci suñu jëflante suñu jëflante yépp ñu ko soxal ne góorgóorlu ci bu baax ci ni mu gën jëfe makaarimul axlaaq maanaam wan gannaaw itam safaan kon diggante boobu rek góorgóorlu bu baax a baax sax ci sant sunu boroom moom mi nu booleeg sëriñ bi sax ci sant sëriñ bi moom muy sunu léppi tey ak ëllëg dëkk sax dakk ci wéetal sunu boroom ci lépp sax dakk ci doyloo sëriñ bi suñ digganteeg moom ci lépp sax dàkk nag ci góorgóorlu bu baax nag sàmmonteeg suñ diine rek sàmmonteeg suñu taal bi loolu rek mooy li ci am solo ñu ngi sant bu baax a baax bokk yi sant kilifa yi sant taalibe yépp sant bokk jullit yi ci taxawaay bi nga xam ne waxtu bu nekk ña nga ca taxaw tem ci diine ji taxaw temm ci taalibe gi ndax taalibe gi diine ak taalibe rek moo koy mottali moo koy rafetal ndax taalibe du dara lu lépp looy def di ko def te yàlla tax muy bëgg mu muy muy jëf lu baax di daw lu bon te yàlla tax di wattandiku bu baax safaan ba ci lépp luy xeeti tere ak lépp loo xam ne ña rafetul lu góorgóorlu ci bu baax a baax di ko sàmmanteeg moom loolu rek mooy li ci am solo kon fàttali rek la ak soññe nan góorgóorlu bu baax ci li ñu feen di muy jaamu yàlla rek la ca dolli ko mooy liggéey sëriñ bi te yàlla tax dañ ci góorgóorlu bu baax loolu moo nu jikk moom ci lañ mooy su njëriñal tey ak ëllëg mooy suñu biir su njëriñal biir ak bitti ci suñu mucc mucc nekk muccuk tey nekk ci su muccuk ëllëg nekk kon nan góorlu bu baax a baax a baax suñ yitte jépp nañ ko def ci jublu yàlla ndax loolu lépp mi ngi ci jublu yàlla ne suñ yitte jépp na yittewoo yàlla rek alhamdulilahi rabbil alamin sant bu baax ci tawfeex jure yi nga xam ne suñu borom defal na may def may na ko sëriñ bi sëriñ bi moom yittewoo sëriñ bi mu yittewoo yàlla rek jublu sëriñ bi mooy mooy jublu yàlla rek ndax bàyyiwul dara ci digg ma boroomu kon lépp lu mën a doon eh, noo ngi ñaan bu baax a baax gannaaw ba nu santee suñu borom donc ko ñaan bu baax a baax a baax mu gën a fab suñuy nas gën na koo dénkal sëriñ Tuubaa sëriñ bi wommatal na boppam lu ci des lépp ne kon ak cant rek la war a doon ak sax dàkk ci góorgóorlu suñu kem kàttan ñi ngi sant ñépp ñu ngi sant bokk yi kilifa yi bokki taalibe yépp bokki jullit yépp kilifa yi yépp ñoo ngi sant ñépp di gërëm ñépp ndax taxawaay bi benn rek la noo ko bokk muy nekkal fi nekkal nekk nekk nekkal fi yàlla ni mu ci lim nu fi indee sax dàkk ci jaamu yàlla rek ak ak ak ak liggéey sëriñ bi ci lépp suñu lépp baax lu baax te yàlla tax loolu rek na nekk ci diggante boobu rek li ci lépp nag mu am ci rafet njort am ci xel mu dal gën cee gën a am yaakaar loolu rek la jërë ngeen jëf ñu ngi sant bu baax a baax di am mbégte bu baax a baax ci taxawaay yi xam nañ ni taxawaay yitte ji yépp mooy sëriñ bi yittewu sëriñ bi nag mooy yittewu yàlla rek kon jërë ngeen jëf fa tabaarakallaahu amiin amiin